waaw ñu ngi si si condition yu baax concentré wu pour euh, allah waaw pare même ñu concentré nañ daal ci match bi parce que xam nañ li ñu xaar aussi donc si yoon lañ nekk nii quoi chaque jour ñun ñu ngi pare quoi. waaw comme ni si concentration ak lépp lu ñu ci war a def allah comme d'habitude waaw seetaan nañ ko gis nañ ñu aussi donc. coach yi teg nañu wax nañu ay jox nañu ay ay plan yoo xam ne buñ ko exploité yaakaar naa ne mën nañ ci génn incha allah ñun daal suñu objectif mooy bañ a ñàkk ñëw jël ko aussi joué ko comme dañ koy joué pour gagner même bu lay premier plat pour gagner ko loolu la ñuy yóbbu soo incha waaw pour man loolu waruñu mën a jaaxal parce que ñëw ñu ñëw ñu fi suñu dëkk dëkk jàmm lañ nekk déjà amuñ fi maanaam bëruñu fi ay supporters aussi te fii pour man booy ku nekk miin na loolu donc loolu war ñu déranger au contraire source de motivation lay nekk si ñun sax pour xam nga accorder ko jouer normalement dara du changer. Hmm. donc mental bi mën nañ ne voilà nice quoi. waaw instant nice ñu ngi concentré nekk si yoon bi rek.